gannaaw ba nga xamante ne euh, procureur de la république euh, daal dina woon sant waa euh, section urbaine ñu daal di koy auditionné moom Pape Ndiaye nekk ab chroniqueur fële ca walfa Walfadjiri tey jile ci àjjuma ji nag la demoon wuy ji ca mujjanteel ga nag dañ ko placé sous mandat de dépôt gannaaw ba nga xamante ne yëkkati na woon ay kaddu daal di def ay daal di def chronique ci li nga xamante ne moom mooy coowal aji Sarr ak kile di Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamante ne moom mi le euh, yëkkati na ay kàddu daal ne daal euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, doyen des juges Omar Maham Diallo ak kii di Amady Diouf gannaaw ba mu fi nekkee woon li nga xamante ne moom mooy procureur de la République dafa defoon li nga xam ne moom mooy non-lieu waaye ñi nga xamante ne daal ñoom ñooy Omar Maham Diallo dañ ko daal di bañoon bi nga xamante ne rek Abdou Karim Diop daal di nay remplacer Amady Diouf dafa daal di sant ñu daal di jëli Pam Ndiaye ngir daal ji moom nag audition boobu jaare na ca jëlee li nga xamante ne moom mooy mandat de dépôt mu nekk ñaareelu taskatu xabaar bu nga xamante ne yëkkati na ay kàddu ci coowal Sweet Beauté bi la gannaaw ba nga xamante ne def nañ ko kile di Pape Alé Niang ci coowal Sweet Beauté bi la rek boo sàgganut ñenn ci ay taskatu xabaar yu nekk ci yenn ci organe de presse yi boo sàgganut moom ñu fekkee 2024 ndax ci kaso bi la leen nar a fekk wala sax wa ñu daal leen ni faagaagal nekk ab mbir bu doy